kaanu isa laylu arxa zitra saalakin xaamu siraaxal li illu jinnatin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen siyaara di jiital ci nuyoo boobu ak siyaara bi saahibul fadila cheikh mohamadul muntaqa alxalifatul aam li taifatil muridiya yàlla na ko suñu borom yàggal lool tamay ko ak wér tamat lay yéeneem ci sëriñ bi te ñaan moom di siyaare njabootu cheikh amin gay buñ ne njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Gaye dañ ci beralaale ab nuyu ak siyaara suñu kilifa ak bopp ak Cheikh Abdoul Fatah Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadou Fadil di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool tamit ko ak yoon ndax euh, bu ñuy fàttaliku sëñ baara sëñ baara Gaye Khady Fall faw ñu tudd ci Cheikh Abdoul Fatah ndax moo meññ way juróom mu tedd woowee di soxna mi Gaye ñu ñëw tey di fàttaliku Cheikh Mouhamadou Lamine Gaye ju gën koo xamee ci Serigne Baara Khary Fall Serigne Baara Gaye Khary Fall Serigne Baara euh, cosaanam waajuram bu góor mooy Serigne Moustapha Gaye waajur Serigne Moustapha Serigne Moustapha ñu gën koo xamee ci mut fasiré euh, ñu di ko wax mut fasiré mooy doomi Madun Siini doomi Anta Baara Mbaj Anta Baara Mbaj moom yi ci askanu jëmooy la bokk askanu jëmooy nag di askanu ràññiku naka jekk ci xam-xam ak sàmm seen ngor wajur mu wajur mu jigéen mooy soxna xari soxna xari faal askanoo gékk faal di askan wu ñu xàmmee diine wu ñu xamee ci diine ak xam-xam ak sàmm ak sàmm ngor sëriñ baar xari faal gannaaw bi mu jàngee alxuraan ba dugg ci njàngum xam-xam la laxas ñëw mbàkki kajoor ngir mottali njàng xam-xamam fa la nekk ba wooteb sëriñ bi fekk ko fa mu bokk ca ña njëkk a jébbalu moom maam Cerno Ibrahima Faati ak sëñ ma Yaasin Umi jàng lu bari ñoo ko ànd ci jàng ci am njàng ba ca yoon wa mu leen eh, yabaloon ci Xaadima yi Kala yab yoon wa sëñ bi yabale woon ci Xaadima Jaxate Kala moom sëñ Baara Xari Faal ak si Ibrahima Faati Yaasin Umi jàng ñoo ànd ngir eh, eh, ñu fàggu fa xam-xam Euh, noonu la nekke woon ci ci ci ron sëriñ bi sëriñ bi doyloo doyloo woon na ko lool ci mbiri ci mbiri biiram ngir maanoom nee nañu sëriñ bi bu masaa tudd aw lu bari daana ca toxtal baatu bu maanu di wax ne euh, sëriñ baara maanu mi mu toqook sëriñ bi fu mu nekk nekk fa moom fi mu jaar fépp ba ni mu sancee Tuubaa ñoo ñoo àndoon Euh, mu féetale woon ko ci ci bind féetale woon ko ci bind alquran ak xam-xam euh, ak ak téere xam-xam di jàng di jàngale euh, ku ne ku ne xam na sëriñ bi ni mu xëre ci xam-xam téere bu mu soxla di ko laaj bu ñu nee diw am na ko dana ko dana ko àbb bindloo ko ko maam Cerno ak sëñ ma yaasin umi jàng ak sëñ ak sëñ Yaasin eh, maam ak sëñ Yaasin bokk na ci ñi ànd ànd bind lu bari ci xaroot ba sëriñ Abdul Ahad eh, doon doon nettali sëñ bi doon na eh, doon sëñ Baara nekkoon ku sàmmoon ku maandu koo xam ne ñépp seere nañu ak maandoom ak jubam ak aw ci yoon ak mel na mu war a mel xam ngeen ne ku sëñ bi bàyyi woon xel la moom sëñ baara euh, euh, bi sëñ bi nekkee ci tukki bi it mësula boole dara ak ak ak li ko war ak li ko sëriñ bi batale woon ba sëriñ bi dellusee it euh, mu dellusiwaat fa moom di wéyal ab liggéeyam na ma ko daan defee ba ni sëriñ bi demee gànnaar bokk na ci ña fa nekkoon ak moom sëriñ Mouhamadou Lamine Diop nee na ba mu ñëwee gànnaar Euh, ci sëriñ bi moom la ko booleel euh, mu nattu alxuraan mu nattu alxuraanam euh, mu jox ko ko mu jox ko kaamil ak alliwa muy muy muy muy tari di bind mu ne ca ba ni sëriñ bi ba ni sëriñ bi wéralee ak ak man alxuraanam mu doonoon jàngkatu xam-xam bu mag a mag a mag a mag boo xam ne sëriñ Baara Xarifal Lal ak sëriñ Mouhamadou lemin Gueye ak sëriñ Baara Fatim Mbodj euh, ñoo ko doon doon jàngal euh, maanaam euh, ñoo doon jàngal ña fa nekkoon daanaka xam-xam ca Jolof ñoom ñett sëriñ bi daane leen boole di di tudd naa sama ñetti baara yi di leen seereel ak baax ba ni sëriñ bi ñëwee njaareem diggante boobu. Eh, yabal na ko fi moom si moom sëñ Bara Xadi Faal ci ci soowu këram eh, maanaa daal fépp fu sëñ bi masa masa nekk rek taqoo nag moom taqoo gu wér goo xam ne ñépp xam nañ ne ku sëñ bi bàyyi xel la ndax looloo taxoon mu am relation bu rafet ak njaboot ku Seexul Xadiim gi eh, ku mel ne Cheikh Mouhamadul Fadil ak Cheikh Mouhamadul Bachir ak Soxna Faatija daanañu ñëw fi moom lu baree bari eh, ak lu baree bari ci wàkk sëriñ bi jaxasoo woon nañu moom lool ngir xam eh, fi ko sëriñ bi tegoon ku ñeme woon addiyeel itam koo xam ne lim daa joxe addiyee kenn mënu ko tat wax nañ ne ay ndawam dañ daa eh, maanaam dañ daa dañ daa dañ daa fekkante sax léeg lekk kon daal sëñ Bara Xëy Fall nit la woon koo xam ne ku moom ci mag ñi mag magi sëriñ bi yi nga xam ne ku ñu war a génne la di ko fàttaliku ba ñépp xam ko ndax euh, ku sàmmoon la ku ku dëdd woon àdduna koo xam ne euh, ci ñi sëñ bi ci ci ñu génn ci école sëñ bi nga xam ne ay formation euh, yu sëñ bi lañ nga xam ne ñu baree bari ràññewuñ leen waaye ñu ñu war a wane la nag ñoo xam ne réew mépp war nañ leen xam te bàyyi leen xel moom mi fi bàyyi ko ci atum 1946 diggam ak mag ñi àndoon ak Serigne Touba diggante bu rafet la bu dëgër boo xam ne fu mu toll da ko daan jokk di ko yeesal ba ni mu euh, demee ba mënatul euh, ba mënatul dem mu koy jokk ci ay euh, ndaw ak ay leetar ku dëddu àddina la woon ku am ku am xëyba la woon ku sàmm la woon ku ku wegu la woon loolu yaakaar naa ne mel na ne kon Cheikh Abdul Fattah Mbacke mii nga xam ne mooy ab sëtam yaakaar naa ne dafa boole eh, te maanaam pësteefu Cheikh Mamadou Fadil ak pësteefu maamam ji kon ku xam Cheikh Abdul Fattah ci pësteef ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ñum ci joxe addiya kon bu ñu la waxee lii ñu wax ci maam lépp daji na ci moom kon yàlla nañu yàlla fayal sëñ Baara Xalifaal te taas ci barkeem te bàyyi fi ak njabootam li li leen andi loon ci suñu baar xëy faar wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu